ñoom ñaar ña nga ca digg géew bi ndeysaan Mathieu mooy arbitre combat boobu ndeysaan di sixième combat de la soirée Thiam production moo ñu fi woo ndeysaan jamaïcain gàcce ngalaama yow grand combat bi nar a dox ci diggante Baye Mandione ak ki nga xamante ne mooy bébé Diène bu Medina ndeysaan arbitre ba sifflé na sixième combat bi jaxaaw moo ñu woon ginnaaw ñu jàkkaarloog Yaxi Mbambi Lor ñoom ñaar ña ngay ñoom ñaar dañuy léewtoo ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk sa tànk ndeyjoor càmmoñ nga jiital ndeysaan ña ngay leew ndeysaan sorante laale wuñu ku ci nekk yaa ngi garder sa distance ba léegi ndeysaan yaxi Mbambilor la ñu jàkkaar lool booy jaxaaw aj na garde ga yaxi Mbambilor teg na paa ca ginnaaw booy jaxaw taxaw jonn ndeysaan teg na paa jëm ci moom yaxi Bambilor dellu ginnaaw ba léegi rek ndeysaan demee wet dellu si waat ña ngay leew ba tey loxoy laale wuñu yaxi Bambilor wàcc na ndeysaan ràcc na ay tànkam booy jaxaaw dëgg na dem ci kawam yaxi Bambilor bougé na déplacement latéral ña ngay leew booy jaxaaw yaxi Bambilor ña ngay leewtoo ndeysaan mayang lu ngay way d'accord ci loolu ndoysaan at ba na combat bi waaw Leewtoo bi gën naa bar taxaw nañu dëggal seen bopp ñoom ñaar yaxi maam bi loolu ngi poussé kurpeñ jógagul congo amagul ndeysaan loxo yaa ngay laale ña ngay leew léegi loxo yaa ngay laale ndeysaan arbitre bi la mu def saan dafa mel ni baax na ci wax na ñoom léegi jegante nañu ñoom ñaar mépp bàyyiwaat ku ci nekk ngi mépp di bàyyi pour bañ jógul ndeysaan yaxi Bambilor cokaas na léegi wàcc na ci suuf dóor na ko gauche droite fayu na jàppante nañu yaxi Bambilor daw na songu ko fobeere ko daan ko ndeysaan yaxi Bambilor daan na booy jaxaaw jël bu amul benn werante dafa daw dóor ci kaw mu jiwóole ko ak moom songu ko dajale ñaari tànk yi daan ko noonu la demee yaxi Bambilor daan na ki nga xamante ne mooy Boy Jaxaw jël bu amul benn werante ndeysaan. aca septième combat bi na ñu ñëw.